Yérim merci. mais maa la gën a kontaan tey moom damaa ñëwoon pour waxtaan ak yow waxtaan ak yow. maa ngi lay ñaaral nga ñibbi ci jàmm ñaaral ma man tamit ma ñibbi ci jàmm. non mais mais waxuñu la de waxuñu la ay defuñu la ay. waaw mais xam nga réew mi dafa doy waar. réew mi lim doy waar doy waar. Euh, Maymuna maam Abdou Aziz Dabakh dama ko dégg mu wax lu am solo daf ne dëgg yàllaa ko moom te yàlla bëgg na ku ko waxal. daa ni wax dëgg du wàññi wërsëg du wàññi at wax na dëgg dañ ñuy jéem wax dëgg parce que du wàññi wërsëg du wàññi at wax dëgg du tee li nga am li nga war a am di ko am du tee li nga war a dund di ko dund loolu c'est important nag. te journaliste bu ñu ah. rey ci dëgg dafa mel ni militaire bu ñu rey ci front il s'en sort avec tous les honneurs. yaa tàkk li ci des nag mooy. li ma li ñu wax yépp tey dafa am benn trame bu ko lal mooy réew mi dafa sooxe mooy